ren nag mu am geneen soppi gu ci am ndax ki nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Touba di Serigne Mountakha moom it ñu ñaanal ko yàlla sunu borom mu gën a am kattan ak wér ba gën a mën a taxaw ci liggéeyu lislaam ak ci yoonu sëriñ Touba bi dafa yónnee ndaw ci sëriñ bi keroog gaaw ci guddi sëriñ Cheikh moom Serigne Abdou Latif mu waxtaan ak sëriñ bi ci xew yi jamono ji fi ñu toll ak yi nga xam ne moom lañuy ñuy ci. lépp lu aju ci yoonu murit ci mbooleem xeeti xew-xew yi ciy am ak euh, naka lañ koy war a tërale ba loolu amee ñu déggoo ci na euh, nañ ko doxalee nii loola mooy fépp fooy mën a nekk te yaakaar borom daarul mooti na nga xam ne sa ndigal mooy nga defee màggalu daarul mooti fa nga nekk du moo tax ma ne du ab woote ab fàttalee la ndax bis bi kenn waru koo fàtte kenn waru koo niinal niñ ko war a defee mooy fu waay nekk rek yow kenn yow yéen ñaar sa këru bopp ak sa njaboot nga xam ne tey jii mooy ni nisfu baan mooy bis bi nga xam ne mooy bisu borom Darou Mouhty nga màgg ndax màggal ci xol lay jógee fas ko ci xol yi waaye nag e, buñ ko daan génn ci bitti loola mooy day dellu ci wàmmaa bi ni'mati rabbika fahadis moo tax li nga ko fas ci sa màggal ko ci sa nga di ko génnewaat ba ñëpp di ko dégg bu demee nag am ay xat ki jafe-jafe jamono nag sëriñ bi nga xam ne moom e, lépp ci moom la aju day xool na mu gën a rafete na mu gën a baaxee mu jàppe ñu def ñu doxale ko noonu kon moo tax sëriñ bi jox mbooleem ñi nga xam ne ñooy njabootuk borom Darou Mouhty ginnaaw bi nga xamee ne wax na ko sëriñ Bassirou Anta Niang ak sëriñ Khalid mu jotal ko mbooleem bokk yi nga xam ne ñooy kilifa ya nekk ca boppi kër yi nga xam ne mooy këri borom Darou Mouhty ak mbooleem seexi borom Darou Mouhty yi mooy ndigal li nañ ko jàppe noonu ren fu sax saxbaan ni sëriñ bi bëgg ñu màggalee ko ni mooy kenn ku nekk foo nekk boo dee kenn bu ngeen dee ñaar ngeen màggalee ko foofa waaye du lu ñu woote di ko wuy si darul moxti ndax jamono laaju ko